أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والأنبياء سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen ndokkeel suñu mbokk yi M Media Group Nourou Darayni di leen ziyaar bu baax a baax di leen bal xaq di ñaan ngeen baal ñu aq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu nangu ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñu rëcc rëcc te di leen ndokkeel ci jamono yu sell yi nga xam ne moom lañuy dund waaye tamit di sant yàlla subhanahu wa taala bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi mu ñu boole ñu gën cee jàpp bu baax a baax rek gën cee def suñu yitte ndax am na solo lool ñuy siyaare mbokk yépp nag di leen ndokkeel di jël nuyoo beeg ziar bi rek di ko jox suñu kilifa gi ak Cheikh Abdoul Ahad Mbacké mu jottale ñu ko mbokk ñu seqal liggéey bi yépp rek képp koo xam ne kii rek yaa ngi ci biir liggéey bi rek ñoo ngi jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo mu mataleel ñu ko ñëpp góor ñeeg jigéen ñi di leen ñaanal yàlla subhanahu wa taala doon ñoo defal tawfiq bu baax a baax barke Cheikh Xadim ginnaaw loolu itam ñuy fas yéene sobuwaat rek ci liggéey bi xam naa mel na ni gëj nañ ci biir jataay bi lool waaye rek jamono ji moo demee noonu rek koor moom dafa demee noo xam ne ni moom ay bagage sam moom du neex a boole gi leneen yu baree baree bare ndax li ci aju lépp waxat ko yàlla ci ay yëngatu yu jëm ci jaamu yàlla dafa bari lool dafa am solo lool ba tax na moom saa bu ñëwee rek moom day daal di wone boppam day daal di wone kattanam day daal di wone tolluwaayam ba daanaka yooyu nga xam ne moom la yittewoo yëpp ñu war cay bàyyi xel ci jaamu yàlla buñ ca dee bàyyi xel yu ci bare bari it day xaw a tëdd côté ba kere ñu koy génn waaye loolu lépp tawfiix la joo xam ne ci yàlla ñu ko defa rek kon ñoo ngi santat yàlla bu baax a baax ci di jéem a dellusiwaat ci liggéey bi rek di ñaan yàlla mu dolli ñu cee jàppale bu baax a baax rek lu am am solo la kon tey laaj bi nga xam ne bi wala laaj yi ñu fi am rek yi ci jëkk mi ngi jóge ci jëwriñ ji jëwriñu liggéey bi coordonnateur bi Modou Ngom ñu nga ñu koy siyaar bu baax a baax wax dëgg yàlla di ko ndokkeel ci taxawaay bu am solo bi nga xam ne bi moom la taxaw ci liggéey bi di ci def ay waxtoom yu baree bari di ci def ay guddeem ak i bëccëgam ci ngir xam ne lu am solo la lu baax la liggéeyal xaadimu rasul la mu def ci yitteem lool wax dëgg yàlla yàlla na ko yàlla doole jàppale ba ñu am ci ñun ñëpp lu koy suñ jot ndax liggéey bu ama am solo la te ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala rek lépp loo xam ne teranga àdduna ak àllaxira la ñeel ab jullit daal yàlla na nu ko ci yàlla defal bi jaay seydna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax teraangay jullit moom bu dee àdduna la bu dee àllaxira lépp mi ngi tënku ci liggéeyal islaam kon nag jëm yàlla baax nañu defal nu tawfiix muy jéem a yëngu ci loolu teraanga jooju nga xam ne ji moom lañu ci yàlla dikk te mu mën a nekk àdduna ak àllaxira yépp ñoo ngi koy ñaan yàlla subhanahu wa taala di ko ko dagaan di ko ñaan mu may ñu ko yombalal ñu ko defal ñu ko defal ci lu kowe suñu njortu di jaay sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon dañuy tàmbale ci laaj yooyu nga xam ne rek Modou Ngom laaj na ko bu njëkk mu ne day laaj lu jëm ci wàllu julli ba tey mu ne ma saa yafalul al ma'mumuuna inda inqitaa'i sawtil imam walam yarawhu day laaj ne comme lu mel ni jàkka wala jumaay bu fekkee ni ab étage la ñenn ñi di jullee ci kaw ñenn ñi di jullee ci suuf nga xam ne jàkka bu demee noonu imam bi moom du dem ca kaw di fa jiite waaye ci bâtiment suuf bi ci lay nekk di jiite ña muy jiite ña ca des ña ca des doo ko yéeg ca kaw nee na nag ñooñ ci kaw bu fekkee ni ab rajo ci la ñu dégg kàddu imaam gi waaye rajo bi dem ba coupé nee na su boobaa ñoom buñ déggatul imaam ji te gisuñu ko seen julli googu maanaam nan lañ koy def nan lañ koy àggalee waaw loolu dañ ko ci wax ne ñooñu bu leen loolu dalee dañu naan yu xayyaruna bayna ahada amrayni ñooñ ci kaw daal nga xam ne ci rajo bi lañ doon dégg imam bi su rajo bi coupé déggatuñ ko gisatuñ ko te amul kenn koo xam ne kii mën naa jottuleel imam ba ba ñoom ñi di ko dégg ne na ñoom ñooñu nga xam ne dañoo bere woon ca kaw dañ leen di tànnaloo ci ñu jël ci benn ci ñaari mbir yi daal ne ne bu leen neexee ñaar yi may bëgg a wax ñu buñ ci jël rek def ko su boobaa may nañ leen ko ngir seen julli googee mën a àgg ne ne awalan an yataqaddama ahaduhum li yusalliya bihim imaaman li anna al imaama allazi inqataa sawtuhu walam tumkin ru'yatuhu wala ru'yatu man xalfahu yu'tabaru fi xukmi al ajiz an ikmaali salaat fala xaraja fi taqdimi xayrihi makaanahu ne ne ñaari ñi leen daan tànnuloo ngir ñu jël ci benn motul ci seen julli ko bu jëkk bi mooy ne ne su loolu amee na kenn ci ñoom ñooñu daal di dem ca seen kanam daal di leen daal di doon seen imaam ñoom léegi ñu daal di mottali seen ak julli ndax ne ne bu fekkee da ngay diglu dégg imaam ci da nga koy dégg rek te gisoo ko ba ci yàgg si am lu dox seen diggante ba dégg ko ko déggatoo ko te gisoo ko gisoo kenn ku la mën a jot lil ngeen rëy dégg ne ne su boobaa dañu jàpp ne kon yow imam boobu la jiite woon am na ngan am na ak jafe-jafe boo xam ne bii maanaam ak tële goo xam ne gii maanaam dootul mën a motali julli ga maanaam jullig benn xaaj boobu kon dañu jàpp ne daal imam ji leen doon jiite am na tëleeg maanaam ñoom moom seen ak julli imam ja mënatu ko mutali su ko defee kon dañ naan na kenn ci ñoom dem ci seen kanam daal di leen jiite ñu àggale seen julli ko waaye duñ dagg julli ko ci wàll ko nga xam ne gi mooy benn tomb bi njëkk ne su leen neexee noonu lañuy def kon ñoom may nañ leen kenn ci ñoom daal di leen jiite mut leen seen julli ko te ne na it haza huwa al awla wal afdalu xataa la yaqaa almusalluuna fi l itiraabi bi sabbin xitaayi sawtil imam ne na sax ñu def noonu maanaam wut seen bopp wutal seen bopp ñoom imam bu leen àggale julli ga ne na loolu sax mooy li war mooy li gën ngir ñoom ñooñu maanaam ñu bañ a am ak jaxasoo ci jamono ji nga xam ne ji loolu dal na leen nañu daal di wut rek ku leen jiite mu daal di àggale seen julli googee wax ne na ne ne loolu waxat faala alsaxaabatu dalika xiina tuina omar bnul xataab fi salaati subhi ne ne kaabu mel nii sax mas naa dal saxaaba yi jamono yi nga xam ne yi sayduna omar da leen di jiite jullik suba te ñu bett ko jam ko ci biir julli googu ba mu mënatuta àggale julli ga ne ne dañoo daal di tànn abdurahman ibn awf maanaam moo daal di dem daal di àggale julli ga ne ne lii lu mel ni dal na saxaaba yi ci jamono yi sayduna omar ibn alxataab mu di leen jiite ñu jam ko ci biir julli gi mu daal di arrêté julli ga abdurahman ibn awf daal di àggale julli ga beneen tomb bi nga xam ne bii may nañ leen koy muy ñaareelu tomb bi mooy an yan wu mu faaraxatal imaam wa yutimmu salaatahum furaada wa takunu salaatuhum saxiixaatan leen itam bu leen neexee bu leen loolu dalee ku ci nekk daal di yéene ne tàggoon na ma ak sama imam léegi kon damay dem ak sama jullit bopp maanaam ñu daal di fas ci seen xol ne léegi daal tàggoo nañu suñu ak suñu imam kon maanaam ku nekk da ngay daal di julli rek motali sa bopp mel ni kon ni nga xam ne bu fekkee ni da nga ñëw imam ji raw la muy mbooloo nga xam ne suñu motul seen ak julli ku ne day daal di julli sa julli bopp ne ne itam bu leen lii dalee may nañ leen ñu daal di am yéene ne tàqalikoo nag imam ji bu ko defee kon ku nekk da ngay julli sa julli bopp waaye itam ne ne bu leen neexee itam mën nañoo wutam imam ci ni mu koy waxee ci fiqh bi nii mu jiite leen ñenn ñi ànd ak imam ji waaye nee na su booba it ñeneen ñi buñ jullee seen julli bopp it maanaam day daal di wér kon daal bu jëkk ba mooy may nañ leen maanaam ñu wut imam muy àggale leen julli ko googu daal moo gën a dëgër moo gën a wér moo gën a baax daal nga xam ne dañuy wut imam rek mu daal di leen jiite ñu daal di mottali seen ak julli waaye itam bu leen neex ne ne mën nañoo daal di ku nekk dem ak sa julli bopp daal di julli àggale julli gi waaye julli gi moom duñ ko dagg maanaam nañu fexe julli gi àgg ci ñaari anam yoo ne buñ ci def rek maanaam loola baax na. beneen laajam bi mu dungom muy laaj manzilatul xajji fil islaam wa mata yajibu alal mukallaf ay yakunu fi shababihi aw fi kibarihi beneen laaj bi lay laaj ne wàccuwaayu aj makka ci lislaam ak it ne leen ndax moom añ moom mag rek moo ko war a def wala gone mën na ko def su fekkee ni ma àgg na ca war koo def maanaam nekk mu kàllaf te man ko ndax li mu seetlu mooy dafa gis ne ñu baree bari dal dañuy gis ne bala ñuy dem makka dañuy doon mag waaw bu ko defee dañ ko naa manzilatul xajji fil islaam alxajju huwa ahadu arkaanil islaam alxamsa maanaam aj wàcc wàcc waayam ci lislaam la jëkka laaj ne nañ ko dañ ko naan moom aj makka moomu benn ponk la ci ponk lislaam yi nga xam ne juróomi ponk la maanaam lislaam dañ ko taxawale ci juróomi ponk yoo xam ni benn bu ci nit ki bàyyi rek gëmu ko wala nungu koo def ci bañ ko su boobaa lislaamam du mat moom aj mii ci moom la ci la bokk huwa ahadu arkaanil islaam alxams teyit bu boobaa day nekk waajibun ala kulli muslimin mukallifin baalixin maratan fil umri te ne ne moom aj mii lu war la farata la joo xam ne ci képp koo xam ne kii da nga dugg ci lislaam doon ab jullit saa boo majooree rek maanaam nekk mukallaf maanaam farata yi di daw ci sa kaw ak maanaam jëfi lislaam yépp nga xam ne danga koy war a def ne ne moom aj mi day war ci yow nga def ko waaye farata ji mooy benn yoon lañ ko faratal ci nit ki ci ak dundam gépp maanaam su ko defee benn yoon rek loola mooy farata jala su ko defee ci diggante mag ak gone yi tamit maanaam nit ki moom saa bu ko julli waree muy dem di julli ji natt asaka war ko woor koor war ko noonu la ko dem makka waree su doonee gone su mënee dem makka dafa war a mën a dafa war a daal di dem su waaye wërta xaar naan damay xaar ba doon mag dog di dem makka ndax bu ñuy xool sax dem ak makka moom dem aji ji maanaam gone daf ko moo gën a wóor moo gën a seet booy xool ndax aj dafa métti métti waaye boo xam ne bii am na ci ay at yoo xam ne bu ci nit ki àggee mën naa am dëgg-dëgg yi la nga xam ne lii mooy aj ga maanaam du ko mën waaye bu dee gone la moom dina ko man kon daal añ moom kenn wërta xaar naan damay xaar ba àgg ci menn at di ko doog a def waaye fu ko nit ki mën a rek moo xam gone la moo xam mag la mu ko mën dafa war a daal di dem aji def ponk boobu nga xam ne bii benn farata la ci farata yi nga xam ne moom lañ teg tam bokk ci lislaam moom aj nag noonu mu nekkee farata liñ ci tegloo dafa bari loo ci ay alxuraan yoo xam ne yi alxuraan wax na ko ngir ñu xam ne aj farata la bokk na ca la ca yàlla wax ngir ñu xam ne aj farata la yàlla ne ne walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabilan am na aay bi wax ne aj gi daal farata la joo xam ne ji yàlla moo ko jël teg ko nit ñi nga xam ne ñi ay jullit lañu nga xam ne ku ko mën danga war a dem defi ko waaye farata jooju it nekk benn yoon ci dund ak nit ki daal di waxaat ne wa azzin fi nnaasi bil xajji yatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yatina min kulli fajjin amiqin li yashhadu manafia lahum wa yadkuru smallahi fi ayaami maalumatin daa di waxaat ne lii muy wax ni wa azzin fi nnaas yi sayduna ibrahim alayhi salaam la ko yàlla waxan ne ko na nga wax na nga nodd maanaam mooy yëgle wax nit ñi ne leen farataal ci farataal naa ci ñoom aj ne ne ko soo waxee loolu rek képp koo xam ne kii war ngaa ñëw ci fii ci Makka def si aj googu rek maanaam dina am secret boo xam ne bii moo lay waral nga ñëw Makka ñëw aj si fii ndax yàlla bi mu waxee loolu Seydina Ibrahim Seydina Ibrahim da ko ne man kat su ma waxee ñëw leen aj si itam maanaam ñi may dégg dong ñoo koy dégg waaye ñi may sori kon duñ ko mën a dégg loolu tax ne yàlla ne ko yow moom waxal rek ne rek ñëw leen aj su boobaa moom képp koo xam ne kii war di nga ñëw war ngaa ñëw rek su boobaa dina ëgsi ci yow ba di sabab ya dina ñëw taxaw ba nga mën a ñëw ne na nag bi mu ko waxee loolu ne ko ñëw leen aj si lam cay jublu mooy li yashhadu manaafi'a lahum ngir ñu ñëw di teewe si di seere ay xéwal yoo xam ne ay njariñ yoo xam ne yi yàlla def na ko ci biir aj gi ak it dafa farleku turu yàlla yu maanaam dafa jaamu yàlla ci ay bés yoo xam ne yi yu ràññeeku la yu ñu xam lañu ndax beneen aaya bi dafay wax ne alxajju ashhurun maalumaatun fa man farada fihinna alxajja fala raxasa wala fusuuxa wala jidaale fi lxajji bu ko defee aj dafay nekk ay weer yoo xam ne yii moom lañ ko jagleel nga xam ne weer yooyu donc ci lañ mën a def aj ga mu doon ak aj waaye bu dul ca weer yooyu du doon ak aj yooyu moom ñetti weer la yoo xam ne yii maanaam dugg nañ ci fi mu ne ndax maanaam weeru korite wi ci la tàmbalee maanaam weeru kore wi ak weeru diggu tabaski wi ak weeru tabaski wi ñetti weer yi la yàlla wax ne alxajju ashhurun maalumaatun aj daal ay weer la yoo xam ne yu ñu xam la ràññee ko muy ñetti weer yooyu muy aw kori diggiw tëbaski aw tëbaski kon daal loolu itam bokk na ci wàccuwaay boo xam ne bi dañ koo tënk rek ci loo xam ne bi aj am na ko ci ci biir islaam ba tey ci wàllu aj seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yaa ayyuhan naasu inna allaha farada alaykum alxajja fa xajju Seydina Muhammad it ne ne yéen ñi nit ñi dey na ngeen xam ne yàlla farataal na ci yéen aj kon na ngeen aj kon war gi nga xam ne gii moom la aj war buñ ci tegtalu am nañ ci ay ay alxuraan yu baree bare yoo xam ne mën nañ caa tegtaloo xam ne farata la waaye tamit ay xadis da cee ñëw bokk ca muy xadis bii ma doon wax ci ne Seydina Muhammad ne ne yàlla farataal na ci yéen aj kon na ngeen aji bu ko defee walahu anwaun thalatha aj nag ñetti xeeti aj moo am alxajju bil ifraad walxajju bi tamatoi walxajju bil xiraan maanaam képp koo xam ne gi da ngay dem Makka ñetti xeeti ay aj yi war nga koo xam bu la ci neex maanaam nga jël ko aje ko mooy alxajju bil ifraad mooy aj goo xam ne gi ifraad lañ ko tuddee beneen aj bi tamattu lañ ko tudde beneen bi xiraan lañ ko tudde baati arab yi nag comme ni mu koy waxe nii mooy mu ne ne al ifraadu mooy ajuk ajuk ifraad mooy lan mooy niyatu adaa faridati al xajji wa baada al intihaai min jamii amaliha tuaddi sunnat al umri buñ ne ajog ifrad ne ne mooy nga yéene def farataay aj yépp léegi léegi nag ci yéene jooju da nga naan su ma ajee ba noppi maanaam def farataay aj ji ba pare ak ya ca war yépp léegi ma daal di continuer daal di def umra nga xam ne alxajju wal umratu maanaam alxajju mooy farata gi umra nag mooy ak aj la ni ñuy defee aj la ñuy defee umra waaye bii da nga yéene maanaam farata la muy aj gi waaye buñ ne umra dañ naa sunna la kon ki dem di dem Makka di def ifraad maanaam moom maanaam day boole ñaar yëpp maanaam day def aj gi ba pare daal di continuer def umra beneen bi ci def muy atamato atamato nag mooy nit ki day def taqdimu adaa i sunnatil umrati fa iza atmama atmama amalaha tuaddi faridatal xajj ajuk tamatoo nag mooy maanaam jiital omra rek maanaam def omra ba pare doog a def aj ci maanaam buñ koy tënk nga xam ne nit ki day def def omra ba pare doog a wëlbatiku nag def aj ga beneen ñetteel bi mooy alqiraan alqiraan nag mooy al ihram bi niyati adaa sunnatil umri umrati wa faridatil hajji fi waxtin waxidin wa amalin waxidin bu dee aj ak xiraan la nit ki yéene def mooy nit ki day armal ci ne man daal damay def umra def aj ci wenn waxtu ak ci jënd jëf maanaam boole leen nga xam ne day jiital yéeney umra ji def umra ji def farataay aj gi waaye ci wenn waxtu lay doon ak jënd jëf maanaam mu boole leen ko su ko defee ñetti xeet yi mooy xeet yi aj su ko defee nag maanaam aj ak umra li leen xàjjale mooy aj farata la umra sunna la waaye ñoo bokk ay jëf maanaam lépp looy def ci aj moom ngay def ci umra waaye li leen tàqale rek mooy aj farata la waaye umratu sunna la waaye tamit moom aj ci boppam dafa nekk ay jamono yoo xam ni moom moom rek ca lañ mën a aje muy ñetti weer yee ma waxan muy aw kori aw diggu tabaski aku tabaski yooyu ñetti weer yooyu dong ci lañ mën a def aj aj ga donc ak aj ci islam waaye omra nag maanaam jamono joo ko mën a defee rek maanaam may nañ la nga dem defi ko maanaam loolu moo leen wutale kon ñu bari nag dañuy di xalaat di laaj maanaam aj ak omra lan moo leen tàqale mooy jamono ji dong leen tàqale ak yéene ji ndax bu dee ne aj la da ngay yéene joxe farata la bu dee omra la da ngay yéene sunna la waaye itam aj dafa am ay jamono yoo xam ni ci lañ koy mën a defee su jamono yooyu jàllee dootoo ko mën a def waaye omra moom amul jenn jamono joo xam ne ci moom lañ ko tànnal ne ci lañ ko def saa boo ko mënee def yi mën nga koo def beneen laajam bu mujj bi moom Modou Ngom mooy koo xam ne kii dañ dafa amut dafa bokk ci ñi nga xam ne ñi dañ leen a war a jox azaka léegi ñu jox ko azaka mu ne ndax asaka yooyu ñu ko jox moom sañ na ci mën na cee génne asaka dañ ko naan waaw maanaam nit ki maanaam su fekkee ni dafa amut ñu jox ko asaka dafay mel ni dafa ñàkkan waaye léegi ñàkkam googu dañ na su ko defee kon jéem dañ ne weeru koor moom dañ ko aj diggante asamaan ak suuf te feeg joxe woo muurum koor moomu duñ ko yéegal mu jàll kon nit ki saa bu ko mënee joxe rek da koy joxe te nit ki jéem dafa amut ba ñu jox ko muurum koor moomu su boobaa maanaam mën nañ ne ñàkkam googu moom ci wàllu googu dañ na mën na koo joxe mu doon muurum kooram ndaxte dañ ne wa yundabu ixraajuha liman zaala faqruhu yowmal iidi ne ne sopp nañu asaka koo xam ne kii ak ak ak ñàkkam dafa dañ ca bésab korite ga maanaam mu génne muurum koor moomu daal di koy joxe kon loolu itam lu ñu maye la beneen laaj bi ci topp mi ngi jóge ci sëriñ mbay coro juuf ñoo ngi koy siyaar bu baax a baax sëriñ mbay ñoo ngi lay siyaar bu baax di ndokkeel ñaanal subhaanahu wa taala mu dolli ñu defal tawfiq bu baax a baax a baax moom itam ku bëgg lu baax ku teewoo liggéey bi lool di ci fesal yéeneem di ci wone yéeneem saa su ne loolu lu am solo la dane ndax moom day laaj man samia zanan hal yusalli mubasharatam mubasharatan aw yantaziru dafay laaj ne waaw nodd moom ku ko dégg rek danga war a daal di julli wala danga war a xaar foofu lañ koy wax dañ ko naan yantaziru xatta yaxiina waxtu salaati li anna salaata kaanat alal muminina kitaaban mawquutan ne ne dañ ko naan day laaj ndax ne ki nga xam ne kii daa dégg ñu nodd ndax saa su déggee nodd rek day julli wala day xaar ak noddu maanaam ak yëgle la yëgle goo xam ne gi dañuy yëgle ne waxtu julli bi jege na waaye du tegtale ne maanaam waxtu julli dafa jot noddu ak yëgle ne waxtu julli mi ngi jege ngir ku nar a julli ji nga mën koo waajal balaa waxtu waa jot kon bu ñu noddee da ngay xaar ba waxtu julli wa jot nga dogu julli waaye du caage na nag saa boo dégg nodd rek daal di nodd ndaxte jamono ji ñuy noddu du fekk ni waxtu julli wa jot na te yàlla dafay wax ne inna salaata kanat alal muminina kitaaban maxuutan julli daal dafa am ay waxtu yoo xam ne moom lañ ko wutal ca lañ ko war a jullee kon nit ku mën a doon gox ba nga nekk da ngay xool waxtu julli yi nga xam ne yi moom la ñuy julli ngay xaar ba mu jot nga dugg julli waaye loo dégg nootu rek daal di julli bu dee tisbaar la fa nga nekk da ngay xool ban heure la ñuy julli tisbaar bu dee tàkkusaan la noonu bu dee timis ba waxtu yëpp jeex rek waaye daal du jàpp rek ne saa bu ñu déggee noonu rek mën nañoo julli ndax gis nga nodd yi léeg-léeg mu sore ak waxtu julliwu lool tey di nga nekk ci béréb yoo xam ne yi du ñu noddandoo sax nag nodd yi day bari di bari ba dina am ñu teel a nodd am ñu ca topp am ñu dem ba yooyu dañuy yéex a nodd su ko defee yow nit ki daal dafa war a yittewoo waxtu ndax waxtu dafa am solo lool rawatina ci julli nga di ko bàyyi xel ba gox boo mën a nekk rek suñu nodd yi tamit bala ngaa julli nga xool ban heure a jot ndax ci heure la ñuy sukkandiku julli waaye deesu ko sukkandiku ci ak nodd ak nodd ak yégle rek la ngir ñu waajal julli yàlla na yàlla defal doolee defal tawfiix bi jaay sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin